asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk yépp ci turu sëriñ Amdi Fall mii toog di jëwriñ maam Cheikh Ibrahima Fall waaye muy tàmbalee am nuyoom ci Cheikh Modou Muntaxa jëwriñam ji di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko lool te wéral ay cëram li mu yéenee liggéey Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lépp mu jëfe ko nu mu ko bëggee rek ba am si lu kawee njortam noonu lay nuyoo ak di jottali ay cantam mu jëm si mboolem njawatu Sëñ Tuubaa gi leen jottali ay siyaaram te di leen ñaanal sama borom mottali seeni yéene ci liggéey bi nga xam ne mu ngi si nekk di ko liggéeyal Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sëriñ bi wax ne mi ngi jottali ay nuyoo ak i cant mu jëm ci njabotuk Seera falgi, gi muy njabootug boppam gi ciantu go xam gu gu gu amna fu mu waye amut fu mu yam ci mbollem ndigal yi nga na ak fi ñu tollu te it non la amé yaakar ci li nga xam loolu lañu ñu dëgmal di leen ñaanal it sama borom kàttanal leen ba ni ko bi bëggé nu diko ko nonu sa su ne di mi ngi jotali ay nuyoot ak i cant mu jëm si mboolem talibé yi ci taxaway yi ñu am ci ndigal yi nga xam ne waxtu wone mi ngi bayiko ko seigne touba di ñew kër Cheikh Ibrahima Fall jotaay bi nak serigne bi moko ko won eh, limu ci mu si jublu kenn ku ne xamna ni dafa am ndigal lu bayiko ko si Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne mooy seigne touba ñew fi ci si maam Cheikh Ibrahima Fall. ci jëmmam ji nga xam ne mooy jëmmi Cheikh Fall di sëriñam di Fall moom sëñ Modou Mbenda ndigal li nag mi ngi jëm si liggéey bi nga xam ne naka jekk bu nu masaa toll fii sëriñ bi da ko daa taxawu ànd ko njabootu Cheikh gépp muy mbalem Touba si waajtaay yi nga xam ne si la ñu nekk ngi waajal bis boobu nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar te xam ne señ Touba khadim rasoul sunu jambar jox na ni lepp lu mo am rek ci bis bobu lokku sunu borom defale ah señ bi nak jot ndigal ci Cheikh Modou Mountakha ngir balem dekk bi bale dekk bi bamu set wicc ngir gan ñi ñi téru ak taral dekk bi ni nga xamne rek non la dekk bi baxo mel namu mu mel te loola kenn jiituwu si njabotuk Cheikh rafal te mom mi di jëm Cheikh rafal tay ji sëriñ bi wax ne mi ngi yëgal mboolem njabotuk Cheikh Fall gi muy buntu kër yépp nag te jot na ndigal suñu waajal mbale mi te fas yéene see jublu te am yéene taxawu ko ni ko sëriñ bi bëggee bu ñu waxee njabootug Cheikh Fall gi nag dañuy tàmbalee rek ci kër maam Saliou Fall daru Xafoor ak kër Cheikh Modou Moussa Fall kër sëñ Mor Abdoulaye Fall Ndar kër Fall kër sëñ Ali Fall Mbawor kër sëñ Mbacke Fall kër sëñ Abdou Sakor kër sëñ Basirou Fall kër sëñ Gunda Fall ñëpp di nga xam ne ñooy ñi kër maam Cheikh Fall sëriñ baa ngi leen di yëgal euh, ndigal loolu nga xam ne na fi moom di leen ci soññi te di di leen xamal ni moom ñoom ñoo ko bokk ñoo ko séq nu fas yéene koo ànd rek ba ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ko noonu sëriñ baa ngi ak di ko yëgal ñi nga xamne seeni wajur wala seeni maam dano àndoon ak sëriñ bi liggéeyal ko ba am ngërëm sëriñ bi boole leen mbolo ñu leen di tudde ay cheikh sering ba nga leen koy yëgal di ci sentu seenu taxaway ñom ñep do xamne ndiga rek lañuy tewlu ak di ko ndigal li nak excena na bi neena lepp lu way jappon nang ko bayyi te fasiyene yéene ci euh, ndigal li, ba niko ko sering bi digale. la mu sa yéene ak la mu yaakaar lépp mu amee ko noonee sëriñ baa ngi soññi dayre yi muy daayira yi aju si kër Cheikh Ibrahima pépp foo xam ne ab a nga fa di tuddoo Cheikh Ibrahima Fall di déglu ndigal te am yéene wéyal ko sëriñ baa ngi lay woo nga waaj te am yéene ak yitte taxawul liggéey bi ba mu mel nu raw na mu daa mel sëriñ baa ngi soññi taalibe yi fu nu mën a ne mooy si biir réew mi ak si bitim réew si ñoom ñëpp ñu def seen xel si ne ndigal li tàbbi na te li sëriñ bi bëgg moom Cheikh Fall rek la ko sant te xam na ni Cheikh Fall dong moo ko ko mënal kon nag nu xam ni taxawaay bi nun taalibe yi nun la war ni ko sëriñ bi bëggee ñu fexe ko taxaw noonu ba mu amee ko noonu kon taalibe yëpp nu xam ni sëriñ bi jot na ndigal mu ngi leen koy yëgal te di leen si soññi kenn ku ne def ko muy sa itte taal muy mbokk yi ak xarit yi. ak am di jàmm yi ak képp koo xam ne kii rek am nga yaakaar si ne liggéeyal sëñ tubaa war na la wala képp ko am koo xamante ne kii am nga yéene liggéeyal sëñ tubaa sëriñ baa ngi lay woo di la soññi te di la nekk ci liggéey bii nga xam ne mooy ndigal li ko sëriñ Muntaxa jox mu ñu setal dëkk bi ba mu set wécc mu mel na mu war a mel ba gan ñi bu nu agsee nu fekk fi loo xam ne dina méngook dëkk bi sëriñ bi mu ngi soññi waa bitim réew ñi nga xam ne taxawaay da daa am jumtuwaay yi yépp rek mi ngi leen di soññi kenn ku ne def ko muy sa itte te xam ne ndigal la loo xam ne lu rëy fi moom la ndax ndigal lu kawe la ndax liggéey bii kat di bale dëkk bii Cheikh Modou Moussa Mbacké daana def bu masaa bàyyi ba suuf sedd mu topp biir daru Xuddoos wala biir kees gi di lal di lal mbubam di buub di wut fu mu koy sotti ndax xam dayo sellal dëkk bi ak setal ko nu mu toll segam nag doomi sëñ tubaa njëkk koo wuutu moo am joxoñ boobee joxoñ ko ba tey jii ñi fi nekkal sëriñ tubaa di ko roy si doxin woowee asamaan nun taalib yi nga xam ne ndigal rek la déglu kon sëriñ bi nee na na ñëpp jekk na ñëpp waaj te xam ne ndigal li egsi na ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lay doon ci weer wi ñu nekk tombe ak benn fanu safar muy altine su ko defee murit yëpp daje si ginnaaw ñi nga xam ne ñoom la tànn ñuy ay jëwriñ jiite ko muy Serigne Fallou Fall moom Serigne moo deminta ànd kook Serigne mu Mbar ak ñi nga xam ne ñëpp seen i rakk lañ euh, ñu jiite liggéey boobu yi ñu ànd kook ñoom ba ni ko Serigne bi bëggee nanu ko daa defee nu defee ko noona ba ni ko Serigne bi bëgg yëpp mu amee ko noonu sëriñ baa ngi soññ ñëpp te leen di xamal ni moom ma ngi ci liggéey bi te ku ñëw da ko fi fekk yitteem wut li sëriñ bi bëgg mu def ko na ko Serigne bi bëggee su suñu noppee nag toog di dégluwaat leneen ndigal ndax kenn ku ne xam na ni. mbale mi bu weesoo rek dañuy daal di tàbbi si biir màggal gi te sëriñ baa ngi fas yéene fii nga xam ne fi la ko dundale woon daaw mu fas yéene fee nekk ànd ko taalibe yi ak njabootug Seera Faal gi ñu nekk fa di ko dundal ak di déglu ndigalu Cheikh Modou Muntaxa sëriñ baa ngi ñaanal ñëpp yàlla sama borom defal leen tawféex ak bu fekkee ba ni sëriñ bi bëgg ñu defee ko noona wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa